asalaamaaleykum mbokk yi tey la alxames ñeenti fan ci chambaan muy weeru baraxlu di juróom ñetteelu weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom ci weeru février ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent ñeenti fan bokkul ci lim yi fa lim bu rafet la kon tey ci alxames ji rafet na lii ci gën a taamu mooy ko ca daloo alxames ju nekk sunna la ci ku ko man mu wóor ko ñaanu bés bi yow sunu boroom yàlla na nga nu defal tuyaaba ci àddina ak alaaxira yàlla na nga musal ci mbugalum sawara rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina adaaba annaar rabbana bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ak malaakaam ak ñooñu asamaan ak ñooñu suuf ba ci yamb wi nekk ci am paxam dañuy ñaanal kuy xamal nit ñi aw yiw xaddis bi at-Tirmidi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha wa malaikatahu wa ahla alsamawati wal ardi xata annamlata fi juxriha wa xata alxuuta la yusalluuna ala muallimi nnaasi alxayr rawahu at-Tirmidi waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi 6h16 juróom-benn waxtu yu tegal fukki simili ak juróom-benn tisba 13h48 benn waxtu bu tegal ñeent fukki simili ak juróom-ñett timis 19h13 juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñett gee 20h24 juróom-ñetti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñeent loolu mooy waxtu julli ci Tuuba ak li ko wër bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres dina yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri kilomètres dina yokkal fenk 7h31 juróom-ñaari waxtu yu tegal fanweeri ak benn di so 19h09 juróom-ñaari waxtu yu tegal juróom-ñeenti simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin